sabat leen sabat leen kaay wàccal tëbal ci loo nekk sant bu baax. mbaa yéen a ngi jàmm waaw sant bu baax baax. ñu soq préparé combat bi contact dem saal def lu ne ban état de forme nga gis ci sox actuellement nii est-ce que gisante ngeen yéen. non xel daal de moom wax dëgg yàlla bu dëgg rek neexee yàlla. no xel dal na quoi ci kaw laa waatee dama yëgaat léegi incha allah. gis nga ko waaw gisoon nañu soo ko doon ñëw nekk waaw. nu mu nu mu nu mu baax a baax instant moom naaj quoi yàlla kontaan nañu instant dal na dal na xel daal incha allah. xel dal na waaw a baax incha allah. nekk ci ginnaaw soq est-ce que du ko mettre pression ci la ci combat. non non bi yàgg nañu génn nekk ci ginnaawam xëy na tey da cay raw rek du ko def dara yàlla xam ne ko dara. waaw bu arbitre sifflé na nga xam ne def ko dal incha allah rabi incha allah rabi wala xam nga. Pikine dafa woote 200 pour cent parcelle woote 1000 pour cent te 1000 pour cent yi ginnaaw roi des arènes fa la ne Papa Sow ma nga fa Goro Sock ma nga fa Garga 2 ma nga ñoom ñëpp dañoo ànd doole ki nga xamante ne mooy Franc ni ko une minute lañ bëgg nga daanoo ñu. waaw fii 3 millions pour cent moo fa am 3 millions pour cent moo fa am gars dañ ne 200 pour cent mais 3 millions pour cent man laa fi gis incha allah rabi te bu arbitre sifflé billaay wala na nga xam ne 3 millions pour cent moo nekk fii Pikine incha allah rabi ñëpp a génn ñëpp a ñëw jàpp ci ñëpp ñëpp ñëpp amul kenn ko des contact tëdd yëpp ñoo ko joxandoo lépp yàlla xam na ko. demoon ngeen fas yéene dem stade. pare ñu ngi nii pare nañ daanaka dañuy hmm. pare nañ incha allah ñu ngi bëgg a dugg stade incha